man bi may tàmbali komba bi xaw ma koy Ousmane Sonko sama digganteeg yàlla ak yonent bi euh, pour ñi bëgg a xam man maa ngi tàmbali combat bi le 5 janvier 2013 sama anniversaire u 40 bi mu amee ci laa tàmbali komba bi euh, damay indi nag tey firnde lu du lu ma neex nag du lu ma neex dinaa leen postel firnde bi après mais bëgg naa yéen ñëpp ngeen dem ngeen xool le 5 janvier le 5 janvier muy sama anniversaire 2013 ci laa tàmbali komba bi bi ma koy tàmbali booba consul bi fi nekk nii sax tey kenn falagu mooy Macky Sall bi mu soogee jël nguur gi di changer ay postes yu baree bari ñun boobu la tàmbali woon combat bi damay indi preuve bi rek parce que xam nga àdduna bi tey lu waay wax rek ñu ne la nga indi preuve photo bi moo nekk nii mais dinaa leen indil vidéo yi bii mooy photo bii sama discours laa doon préparé discours bi ma amal jour boobu moom laa doon préparé voilà c'est le 5 janvier 2013 euh, bi ma jógee ci lii te dafa am ay seede nag ndax xam nga fi moom booy wax ay seede te nee naa leen seede bi ci gën a fës mi ngi tudd Kebs Thiam mu TFM

après di ngeen ko gis te di ngeen gis ndeysaan ni ma ci gën a nekk yang sax ni ma ci gën a nekk xale mais vidéo bi mouvement bi ma créé woon mi ngi tudd mouvement PAS PAS mouvement PAS boo leen xoolee tey PASTEF par exemple muy parti bi ñu andal ñun ñëpp PASTEF mi ngi tàmbalee PAS am PASTEF donc xam leen ne mouvement PAS bi muy juddu c'était le 5 janvier 2013 le 5 janvier 2013 sama anniversaire u 40 moom laa ko baaxee woon mais rek pour gàttal boo leen gisee sax ma indi débat boobu tey c'est tout simplement parce que damay gis ndeysaan ay polémique parfois nga gis ay nit yoo xam ne dañu am xam-xam di wax waaye yenn saay aussi nga gis ay tête vide yoo xam ne ndeysaan euh, ay bopp koko lañu donc li ñuy wax sax ñoom ci seen bopp xamuñu ko wala gëmuñu ko mais man 2013 laa tàmbali xeexal Sénégal en 2013 laa tàmbali xeexu Sénégal léegi nag fas forward dama jël li ma neex ak li ma naqari jël samay problème yëpp tegee ko boor bi ma gisee ku mel ni Ousmane Sonko yàlla fësalal ñu ko indil ñu ko ci établissement bi pour ñu changer Sénégal muy nit ku dëggu yàlla dimbali ñu tey ba ñu fal ku mel ni Bassirou Diomaye Faye fast forward again coow lii ngeen di dégg ci internet bi nii yëpp Ousmane Tounkara consul Ousmane Tounkara nangam du xeebu consul nag ngeen jéggal ma consul daanaka moom mooy kii représenté citoyen sénégalais yi ci réew mi mu nekk loolu mooy consul te man loolu maa ngi koy def gratuitement comme ndeysaan ni ko mu sell mi daan defee feneen ak ñu baax ñi ni ñu koy defee feneen sans salaire sans benn privilège man Ousmane Tounkara man maay consilu sénégalais yi sans privilège sans salaire du auto de service du salaire du domicile du dara amul benn privilège bu ma ci am te du xeeb aussi consul maanaam tey man liñ may fay voilà kii am na ku ne Cheikh Loum mu ne man 2017 laa la xam effectivement xam nga nit ñu bari comme ni ma la ko waxee rek am na koo xam ne 2016 la la lala am na koo xam ne 2020 la la xam am na koo xam ne démb la ma xam am na koo xam ne il me connaît hier mais waa New York ñi nekk New York ñoom xam nañ ma ñoom xam nga kañ lañ ma xam dans les années quatre-vingt waa New York dans les années quatre-vingt lañ ma xam donc man du ma bees ci New York pour ñi ma xam depuis les années quatre-vingt ñu ngi dalal New Yorkais yi ñu ngi leen di defal ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di wutal liggéey ñu ngi taxaw aussi socialement dans nos communautés amul dara luy xew New York loo xam ne ñun duñ ci tax donc dama bëgg ñi bëgg a xam loolu ñu xam léegi loolu sax du lu ñu intéressé mais li may wax rek la encore une fois dama gis nit ñu bari tey ñuy ne mérite man sama mérite du consulat moo koy fësal parce que man li ma def bu fekkee mérite la bu fekkee da ko bëgg a jël nga def ko ci côté mérite mérité na cinq cent mille consulat parce que bu dee combat kenn ku nekk day indi mi ngi mel ni tey ñu ne cotisation kii indi deux kii indi trois kii indi cinq donc nee naa leen combat bi man caaya laaj ndax combat bi ñu ne wolof Njaay nee na lu sotti am boroom wolof njaay moo wax loolu mu ne lu sotti am boroom wolof njaay a ko wax donc man duma fi toog pour ma wax sénégalais li ma def ak li ma deful man duma toog je je ne resterai pas à côté pour dire au sénégalais maa def lii defuma lii maa wax lii waxuma lii maa maye lii mayewuma lii moi je ne le ferai pas c'est pas de ma nature sénégalais yi xam nañu yàlla xam na allahu aalam donc man du ma fi toog di wax sénégalais yi lu ma def dégg naa sax quelque tête vide encore bu ñu amul argument xam nga luy seen argument bi gën a taxaw ñu ne la jàngul mais moi je je pense que parfois je rêve ou je pense ou parle à des têtes vides damay wax ak sénégalais mu ne ma jàngul damay wax ak sénégalais mu ne ma jàngul je bu vous donner peu dama leen di may tuuti lii waxuma ko du sama CV c'est la réalité man autodidacte la xam ngeen luy autodidacte mooy nga jàng ba à un moment donné ci sa carrière de vie soit ñu interrompre sa jàng parce que parent bu la soxla woon génnee la école pour nga dimbali ko walla mu doon ñoo xam ne day am seen kër day am complication amuñu koo xam ne moom moo war a taxawu ci kër gi ci yenn côté yi ñu génnee ko école mais je vais vous chose man Vélingara la jàngee maa ngi jàngee école Saint-Joseph laa jàngee def na CI CP1 C2 CM1 cm li ñu bari amul déjà man dama am certificat ba pare am entrée en sixième ñaar yooyu jàpp leen ko. ñàkkuma maanaam du dafa am ñu bari ñoo xam ne bu ñu daan jàng bu ñu jàngee ba à un moment donné dañuy calé moi j'avais des moyennes de dix huit plus man du ma average student I wasn't na average student j'étais toujours parmi le meilleurs j'étais toujours soit premier ou deuxième de ma classe man du ma ni te bi ma paree bi ma yàlla dimbalee ma ñëw Amérique dama leen di wax leneen loo xam ne dina leen rayati encore man dama am GED maanaam comme mënuma woon continuer samay jàng ba am niveau bac dem université donc dama dem passer lu tudd GED mooy maanaam niveau back am bac tu as compris autodidacte la bi ma amee loolu nag may enrôler ci ay leçon maanaam tey di jël ay classe ay business class ay real estate class ak yeneen ak yeneen you have to understand loolu defuma ko pour consulat man sama vision dafa dépassé consulat man Sénégal laa bëgg a développé réewu Sénégal bi laa bëgg a jàpp nii ci sama loxo Sénégal laa bëgg a développé man nekkuma ci ay mbirum consulat man Ousmane Sonko ni muy xalaatee ak Jomaay troisième bi laa bëgg nekk donc noppal leen seen bopp ci wax yu ñàkk fayda yi ak yu ñàkk xorom yi ak yu amul ndox consulat New York GMC bu peut-être 2003 la ñuy dawal wala 2004 dama leen di jox rek exemple bi gën a bi gën a fës consul New boo demee oto bi ñu yor GMC bu 2004 la man Cadillac Escalade bu 2023 laay dawal climatiseur bu sedd guy dëkk ci koñ yi gën a yànj ci dëkk bi am njaboot du du tabarkalla macha allah donc consulat lan la ma mën a defal exactement consulat salaire damay ne salaire consul boo ko jëlee à sa totalité dama lay wax rek bu dul da ngay liggéey ngir yàlla salaire consul je pense que c'est entre deux millions et trois millions man loolu dama koy gagner par semaine Amérique donc consulat lan la ma mën a defal entre vous et entre vous et nous entre man ak yéen consulat lan la ma mën a defal vraiment nag damay ne yenn saa yi du bëgg a wax ndax du ma bëgg a tuutal ndax du ma bëgg a ñàkkal fayda mais man liggéey bu ma jëloon tey ci Sénégal faveur lay doon bàyyi leen loolu xel amul benn post ci Sénégal bu ma mën a fay li may am amul amul benn post boo xam ne tey président Sénégal moo koy joxe ak premier ministre Ousmane Sonko boo xam ne man na maa fay li may am man nag ndeysaan yàlla dafa def yàlla dafa def indifférent différent de beaucoup de personne déglu leen ma encore déglu leen ma encore différent de beaucoup de personne différent de beaucoup de personne man j'ai la chance de parler au président au premier ministre Ousmane man différent de beaucoup de personne man man naa wax ak Ousmane Sonko directement man naa wax ministre mi yëpp directement différent de beaucoup de personne mooy tey nga jël exemple Yacine mama Yacine man nee naa leen man maa njëkk xam mama Yacine Fall ka Ousmane Sonko mama Yacine Fall man bokk naa ci doomu aadama yoo xam ne man bokk naa ci ñiy encouragé pour mu nekk Pastef te te ndeysaan malheureusement bi ñu bari ci Pastef lâché mama Yacine bokk naa ci ñi ko épole ndax sama yaay la. une dame extraordinaire ma xam numéro ma man koo jot donc su ma soxla woon poste wala may lijjanti poste man naa ko woowal sama bopp ma wax ko li nga xam ne moom laa soxla man ci sama bopp il faut sénégalais yi nag yenn saa ñuy joxante tuuti cër quoi tuuti respect man su ma soxla woon poste xam naa ni may wooyee Ousmane Sonko xam naa ni may wooyee Bassirou Diomaye fay président Bassirou Diomaye fay ma ne ko lii laa bëgg man combat bii nee naa leen du ma fi silip man kaftaan laa fi man suma ma soxlaa damay laaj tapé sur la table ne leen hé lii laa soxla te defe naa nii laa ko man a doxalee das das waayam léegi nag ah foo mën a nekk ci àddina di nga am ñu la bëgg am ñu la bañ nag c'est normal ñi lay bëgg dinañ la munuma leen bañal li nga xam ne moom mooy seen ak ak seen yelleef bu dee tey sénégalais yi bu ñu amee problème damay ñëw taxaw tey ku mel ni par exemple Mafal ak ñeneen Mafal par exemple un jeune qui à la 116 te am fa salon de coiffure di def liggéey bu jéggi dayoo ci Amérique buñ la soxlaa sénégalais yi buñ la soxla ñoom dañuy woote te ñëpp la ñuy woo bu dee ñoom bu ñu wootee man damay ñëw di leen wuyu si toujours mais nag sëñ bi. c'est seulement naturel buñ leen ne da ngeen dañu bëgg ku leen représenter ñoom ñu tëbaka dal ñu ne Ousmane Tounkara la ñu bëgg mu représenter ñu mais où est le crime loolu ko bañ bi ñuy woote nga ñëw bi ñu daan woote ngeen di lakkatu seen suufu lal quatre-vingt-dix pour cent des fii ci Amérique te ñu xamante bi man dama daan woote bi ma daan woote foo leen daan nekk da ngeen daan nëbbatu bu ñu daan laaj ndimbal ci yeneen côté yi fan ngeen daan nekk na mais attendez jox leen sénégalais yi cër jox leen sénégalais yi cër il faut respecter le sénégalais lu tax sénégalais yi amuñu droit choisir li leen neex lu tax amuñu droit boobu mais am nañu droit malgré comme je vous di man laajuma kenn man lijjantiwuma dara il faut ngeen xam loolu man consul du privilège ci man déedéet man maay privilège ci consul déglu leen li may wax déglu leen sénégalais yi laay waxal de consul c'est pas un privilège pour moi man maay doon privilège pour un consul man bu ma nekkee consul maanaam man maa may consulat bi privilège du consulat bi moo ma may privilège parce que man dama am privilège ma pare il faut ngeen comprendre loolu moi je suis respecté partout dans le monde bu ma bëggee tey jóg fi ma toog nii dem congrès américain damay woote tout simplement am rendez-vous dem dugg bu ma bëggee dem Sénat dem bu ma bëggee gis maire New York gis ko bu ma bëggoon gis président de la République bu Amérique ma gis ko bu Sénégal wax noppi donc may leen ñu jàmm meen dof bu jóg wax kaña bu jóg kataraayu si ndax bu jog sow mais noppal leen nit ñi meen man bu ma lépp lu ma bëgg ci Sénégal man naa koo dem lijjantil sama bopp adduna bi sax man naa ko donc dama ne nañu joxante cër jeune ne suis encore demandeur de rien kii may déglu muy le premier ministre Ousmane ko xam na ko ci man muy le président Bassirou Diomaye fay xam na ko ci man xam leen ne ñu nag ñu dañoo bokk génération man je suis quelqu'un qui prenait le téléphone bu ma amee lu ma wax président Bassirou Diomaye Faye en ce ma wax ko ko bu ma amee lu ma wax président Ousmane Sonko mii ma wax ko ko te ci cër donc comme ñun ñoo leen tànn dama ne la don de soi la patrie moo ma tax a jóg ñun ñoo tànn Ousmane Sonko ñun ñoo tànn Bassirou Diom président Bassirou Diomaye Faye nañ leen dimbali ñu gunge leen ñu bàyyi leen ñu liggéey man loolu laa gëm. nañ leen yee nag nañ leen conseiller nañ leen teg ci yoon mais nañ leen gunge ñu liggéey loolu mooy dëgg li ngeen di gis nii lu bari quatre-vingt-dix pour cent des personnes ñi xataraa yu tey waa waa boor bale la waa ñàkk jàmm lañ ñoom ak waa ñoom ak waa kër ñàkk jàmm ànd am na ci ñu bari ñoo xam ne ndeysaan bokk nañu ci ñu demoon seeti Macky Sall à deux heures du matin ñun xam nañu lépp on connaît am na ci ñu bari ci ñoom ñoo xam ne seeti nañu Macky Sall à deux heures du matin gars yaakaaru leen ne bëgg privilège Macky Sall moo fi jóge lépp lu ma bëggoon ci Macky sàll man man naa ko am bu ma ko laajoon milliards ay milliards dig nañ ma ko ba tàyyi ma bañ su ma bëggoon ay milliards jël naa sama ay milliards jël privilège te Macky Sall moo fiy nekk ba léegi ndax Macky Sall li ko daaneel fii la juddoo New York City dégg naa sax ay nit yu bari ndeysaan yuy xataraayu nee nañu ñoom ñoo créé idée bi yeeg ñoo créé woon idée bële kenn créé wul idée vidéo yooyu ku dul kii Ousmane Tounkara vidéo yooyu ngeen gis ci camion yi lu dul ma woo sama xarit yi nga xam ne ñoo nekk Pastef ñu am lu ñu participer ci paiement ma woo kii nga xam ne mooy Malang Gassama muy sama bras droit moom mooy sama loxo ndeyjoor ma ne ko lijjantil ma nga lijjantil ma camion yi xool société yi fan la ñu nekk ak fan la ñu lokkee mu lijjantil ma ko xam nga kan moo a defaral vidéo yooyu c'est un travailleur de TFM ku ñuy ne Chérif TFM lay liggéeyee imaginel li daaneel Macky Sall vidéo yi ki ko defar ci télé Youssou Ndour bi lay liggéeyee est-ce que yéen xam ngeen loolu Chérif la tudd mi ngi Canada tey mi ngi Canada billahi wallahi tallahi Cherif moo créé vidéo yi yenn yi Pape Alé Niang laa woo Dakar matin ma ne ko yow it vidéo yi nga am yëpp joxal ma ko nga créé ko ko mi ngi ko jox jëkkëru co coro coro maxu Mandela maxu Mandela moo monté yeneen vidéo yi ñooñu ñu ngi dund dem leen laaj leen est-ce que yéen sénégalais yi mas naa ñëw ci kenn mën a leen cotiser leen def leen ket nañu def lii déedéet bi may mujjee daje ak Malang Gassama gis nga man bëgguma sax def lii mais gis ngeen boo duggoon sama kër tey bu ma leen dugaloon sama biir kër li ma yor ci matérielu Pastef ëpp na dix mille dollars dégg yéen a ngi dégg sama nopp dix mille euros calculer li ma yor ci matériel u Pastef ëpp na six millions de francs CFA ci yére ak bracelet maa jënd ak sama xaalisu bopp pour jàppale pousse Pastef liñ ci mën a jaay ak maye def nañ ko li ci des mi ngi fii ci sama kër sama terrain boo duggee sama oto ay pra euh, yére Pastef ay bracelet Pastef ay nangamu Pastef donc na nit ñi arrêté seen yëfu naa fépp yi waxoon naa leen ko nee naa leen man dama yor mille six cent soixante dix huit pages déglu leen seen noppi ubbi leen ko ki jàngul illettré bii ngeen di wax mille six cent soixante dix pages la ñu yor déglu leen ma li ñu yor ci groupe whatsapp ëpp na mille déglu leen sama nopp bii li ñu yor ci ay groupe messenger ëpp na cinq cent bëgguma di xeex ak doomu aadama ci ay facebook parce que bu ma ko defee damay rey nit ki dama lay faat faat la faat say waa kër loolu lay def moo tax sama combat ce n'est jamais personnel moo tax ñu mën a daaneel ku mel ni Macky Sall ñun gunge rek la ñu mën a def Jomaay ak Sonko man Ousmane Tounkara ku ma xeexal ci yow lay metti mille six cent soixante-dix-huit pages laa am dégluwaat leen ma sénégalais yi ma dànkaafu leen mille six cent soixante-dix-huit la ñu am munul sax yenu maanaa loolu munul sax dugg ci biir bopp man sama combat dafa dépassé New York sama combat amaana dépassé na sax Afrique amin dépassé na sax tey Sénégal c'est Afrique la bu Afrique amoon ambassadeur de l'Afrique loolu mën nañ ma ko poste euh, tuddee wala consul de l'Afrique mais ay consulat ngeen di xataraayu bay bay karsentaat yi ñii di dof ñii di duulaka dajale mais dimbali leen ñu meen nobody needs that shit déedéet it's only for love and respect tey ndeysaan nit ñu baax di xam ne xam ngeen senegal ñaata nit yu bees ñoo fi ñëw Amérique vous savez combien de nouveaux jeunes nous avons ici damay jox Pastef crédit de wax naa leen ko nee naa leen Pastef fay na ñaari fanu camion bi camion bi ñu yoroon fay na deux jours jóge ci Mahdi Mbeng seen trésorier général alhamdulilahi rabbil alamin ñu ko ci sant di ko gërëm bu baax waaye pour toog yenn dof yi naan idée bi fii la jóge du ci benn doomu aadama bu dul Ousmane Tounkara mu yor bikam ak crayon toog ci biir saalam di tracer ay idée yéen ñi xam sax xam ngeen loolu ndax yàgg ngeen gis may taf ay photo Macky di ci def courroie man maa contacté Pastef ma ne ah am naa idée bu bees ñu ne ma ban idée la lool ma ne leen de man dama yaakaar ne Macky ñaaw te fii muy def nii yëpp dañ ko war a exposer pour àdduna bi gis ko. ñu ne ma ah ñu loolu noo koy defee ma wax leen exactement li may waaja def ma dem def yu ay montage video vidéo te sonaluma ci nit ma dem uti sama ay vidéo monté ko sonaluma ci nit laajuma ko kenn Mala Gassama muy ki nga xam ne sama partenaire la ma ne ko Mala mu ne ma waaw dama bëgg nga defal ma ay recherche wutal ma camion yii nga xam ne ñoom la ñuy exposé vidéo yi pour àdduna bi gis ko maa ngi defar documentaire bu leen yàkkamti documentaire bi dina faram-pàcc lépp ni mu xewee autorité yi ñi may waxal ak li may wax ak li ñuy def ak xaaju guddi yi ba keroog bi ñuy bàyyi Ousmane Sonko ak Jomaay ci semaine boobu discussion yi ma am ak yenn autorités yi ak ci yenn façon yi li ñu xam dafa bari ak li ñu liggéey dafa bari moo tax ma ne leen kajul ci ay waxtaanu mbedd déedéet maa ngi defar documentaire maa ngi defar documentaire mu ne euh, Djidji de ak Akhenaton li ñu yàq ci projet bi doo leen gis Oh, baal leen ma jéggal ma voilà maa ngi jéggalu euh, bëgguma woon sax liir loolu vraiment baal leen ma léegi déglu leen ma rek ma maa ngi def ab documentaire te maa ngi bind ab livre wax naa leen ko maa ngi bind ab téere buy saf-sap téere boobu man gëm naa ne bis bu ko sénégalais yi liiree lu bari di ngeen ko comprendre ci combat bi xam leen ne combat bii nee naa leen jarul par parloo jarul nangam parce que kenn ku nekk li nga fi gis mi ngi ne li nga fi def mi ngi ne fàng li laa leen doon wax démb ne laa leen nañ leen génn nañ leen xeex parce que li fi am dafay des ci archive yi ba àdduna tukki ku fi deful dara tojoo fi nen nga yor say lammiñ di duula ka dajale yaakaar ne loolu moo la ciy génnee déedéet archive yaa ngi fi lu fi waay def xam nañ lu fi waay deful xam nañ ko gis nga président Ousmane Sonko lim fi def yëpp du début à la fin xam nañ ko Jomaay lim fi def du début à la fin xam nañ ko El Malick keneen ak keneen ak keneen Pastef Amérique ñi fi liggéey xam nañu leen ñi fi daan génn di dem ci marché yëpp xam nañu leen d'ailleurs ma jaaraale fii ma nuyuwaale suñu frère ndeysaan Ibrahima Dramé coordinateur Pastef USA de passage amul marche bu mu musul bokk ci Pastef amul dara lu mës a xew ci Pastef loo xam ne Ibrahima Dramé bokk ci mais yéen dafa am sénégalais yu ma yeb sax tey Chérif suñu xarit Chérif Diouf mi ñu fal Canada secretaire général des sénégalais de l'extérieur mais kooku suñu xarit la muy nit ku baax def liggéey bu jaggi dayoo mais bu dee yéen nelaw leen yéen kan ngeen mës a gis tuddal leen ma benn nit ci Pastef bu mës a def wala lu de ku def lu ëpp li ma def tudd leen turam rek bind leen fii yéen a ngi yor commentaire yi bind leen ne leen diw mi ngi Pastef li mu def kenn defu ko musul am man maa yëkkati sama loxo ci kaw amul ku Pastef defar ci àdduna bii ku def lu ma deful man maa leen ko wax man def naa ba def lu ma warta def mais dañuy àmbal nee naa leen man def naa ba man ci sénégalais rek la Macky Sall daan yëkkati ay nit ci avion Sénégal ba Amérique ne leen dem leen seeti Ousmane Tounkara pour corrompre ma man rek maa am loolu sama loxo ngi nii Macky Sall day yëkkati ay nit Sénégal ba Amérique du benn du ñaar du ñett du ñeent man wax naa ak Macky Sall nit woo na Macky Sall appel vidéo def ni na ma Ousmane waxal ak président ma wax ak moom mu ne ma ah waaw sëñ bi tuur ci ndox mu sedd ma yónni lii ak lii ak lii man am naa loolu ci Macky Sall bu dee amul yàlla naa suul sama ndey bi ma yaakaar kon bu ma nit ñi yab man bëgguma yabaate bëgguma manqué respect yab manqué wu ma kenn respe nag ndax ñi baax ba léegi ñu ngi doon ñu ngi baax ñi bon aussi ba léegi ñu ngi bon donc jox leen ñu cër je ne suis demandeur de rien du tout sama diggante ak sama tëraay bàmmel amul man nee naa leen sama loxo mi ngi nii indil leen ma benn nitu Pastef ne leen kii moo def lu Ousmane Tounkara deful indil leen ma benn rek dama man man aw ma problème xam nga man maa ngi fii yéen yéen a ngi fii indil leen ma benn nit bu nekk Pastef ngeen ne ma kii li mu def Ousmane Tounkara defu ko Pastef nag samay frère lañu waxuma lii parce que dama am problème ak kenn aw ma problème ak kenn ndax ñoom Issa Diène c'est mes amis ndeysaan xale yu xale yu xarañ ñoom Cheikh Anne Cheikh Anne ndeysaan kooku waxuma la rak c'est presque bu bu bu ma ko motoon yenn magee woon yenn âge yi sax je peux dire que c'est mon fils Cheikh Anne sama sama sama loxo ndey yor la ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc du tiitaru ñun defuñu dara pour tiitaru defuñu dara pour puukare ndax man musumaa xaar Pastef ci dara ba ci élection yi passé sama essence bopp laa jël ak sama oto bopp di fay samay hôtelu bopp ànd ak nit bu Pastef ñaari nit yu Pastef fu ma dem ci Amérique ma ma def li ma war a def te xaaruma ci dara yenn saay nag ndeysaan nga daje ak ay militants yu extraordinaire te duma ko nëbb dem nañu dëkk bu mel ni Saint euh, euh, Memphis Tennessee ngeen xool projet bii ni mu amee doole dëkk bu mel ni Memphis Tennessee dugg ci benn boutique sénégalais di di di wax projet bi waa ji yëkkati mille dollars nëbb ko jékki-jékki nañu rek mu jël mille dollars mu ne ah do defee leen ko essence bokk naa ci sénégalais man ma wax leen am na ay sénégalais yoo xam ne bokkuñu Pastef man sénégalais woo na ma te bokkul Pastef xamul projet bi lijjantiwul projet bi un homme d'affaires sénégalais m'a appelé mu ne ma Ousmane Tounkara ma ne ko waaw mu ne ma soo ko nanguwul rek duma la ko baal ma ne ko loolu lan la cinquante mille euros déglu leen ma de cinquante mille dollars la yëkkati mu ne ma am mu ne ma soo ko nanguwul rek duma la ko baal donc mbir mii dafa bari ay mbir yu laqatu yoo xam ne ñun duñ ko nangu duñ ko nangu wax duñ ko nangu jege duñ ko nangu laal parce que bugguñu ëllëg ak sibir bu ñu taxawee suñu kanamu nawle yi ñu mën a nëb ñuy nëbbatu loolu amul duñ ko def donc dama ne respecté leen ñu respecté leen ñu te ngeen respecté nit ñi seeni choix Mafal c'est un patriote Mafal barki Dembo Ndiaye yàggul bi mu ñëwee ci xeex bi waaye lim fi def suñu xale Nicaragua yi bu dul woon Mafal bu dul woon Mafal dinañu torox xale Nicaragua yi ñëw Amérique si ce n'était pas Mafal billahi wallahi tallahi dina la torox loolu mooy dëgg mais ñun on demandeur de rien on n'emmerde personne on ne critique rien On est d'accord avec le président Ousmane Sonko et le premier ministre. I le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. am ay imbéciles y jóge fële di xataraayu waaye qu'est-ce que Ousmane Tounkara a pour mériter qu'est-ce que Ousmane c'est que Ousmane Tounkara a fait pour mériter tu veux le demander Ousmane Tounkara a fait tomber fucking Macky Sall man sinon vous allez être des esclaves jusqu'à présent c'est ce qu'il a fait vous voulez savoir ce que Ousmane Tounkara a fait il a refusé à Macky Sall tout ce que xam nga Macky Sall lan moo tax tey mu nangu woon dem ci ay kaso di négocier pour pour ñoom Ousmane Sonko may ko jàmm pour mu daw parce que il n'a pas pu corrompre les gens comme Ousmane Tounkara dans la diaspora mais Sénégal Macky Sall noppiloo woon na ñëpp tëj na ñëpp noppiloo ñëpp ku wax mu tëj la yéen yaakaar ngeen ne Sénégal moo tax Macky Sall daw Sénégal lan moo fa nekkoon rien il a enfermé tout le monde et il a silencié tout le ñun diaspora bi ñoo ko teg pression ba mënatul supporter pression bi intelligent qu'il mu daw mu dem ci biir kaso yi mu commencé négocier ak ñoom Ousmane Sonko ak Diomaye pour génn prison pour daw génn réew mi ñun ñoo tax Macky Sall def loolu la diaspora donnez-nous notre respect nit boo ko bañee sax jox ko li nga xam ne moom la yelloom wax mbaaxu jàmbur yàqul dara ci sa bos ñun xam nañu li tax Macky Sall dellu ginnaaw